la plaidoirie les plaidoiries sont fortes commençant par. et légitime. oui parce que dañu porte ay combat ñoom jigéen ñi te en général ba yàlla may leen une parité au niveau des postes électifs ça il faut applaudir mm-hmm. parce que euh, combat la boo xamante ni de longue haleine ba agsi fii tey maintenant c'est un combat bu war a continuer pour ñu mën a am une parité au niveau des postes nominatifs n'est-ce pas parce que aussi euh, jigéen am na solo ci réew <laughs> ci réew donte man ànduma ak ñoom nag. am na am na solo ci réew lool lool parce que li ñuy kaas dafa bari te d'habitude su seen intérêt jóge rek la ñuy kaas parce que euh, ah bon. waaw parce que jàpp naa ni peut-être euh, waroon nañ leen dégg ci yeneen yeneen yeneen domaine yoo xamante ni. amoon na fi situation boo xamante ni y a des y a des femmes par ci par là y a des dégguñu leen ci quoi dégguñu leen ci yenn. yow yaa leen déggul parce que yow. tu t'intéresses à la politique man man dégguma leen ci quoi man dégguma leen ci personnellement. maintenant maintenant maintenant mais dañ may dañ may sot fi ne nii doyen. doyen ñu ngi may sot. neel neel maman Dior Sarr maa ngi koy nuyu. nee na mu ngi leen nuyu nee vous êtes formidable. voilà eh, maintenant maintenant. noté nga loolu. le gouvernement là. Hmm. a montré toutes ses limites. ah bon. quatre femmes benn jeune. loolu mooy ki am moins de trente cinq non moins de trente cinq ans mooy. à soo demee pipa non non non soo demee pipa soo demee pipa dafa am âge bu ñu koy limité et les jeunes sont en train de se battre di ngeen di xeexee ah. mooy l'emploi des jeunes. non pas au-delà de l'emploi des jeunes. non boo demee par exemple 35 ans boobu nga wax je suis d'accord parce que boo demee pour demander. pour kii li ma bëgg wax mooy les jeunes se sont battus pour que au niveau des des listes des élections des postes électifs ñu am ci 30 pour cent. ok mais gouvernement bi amuñu 30 pour cent benn jeune la ñu am. ok te mun nañ wax ni. ñoom jeunesse bi ñoo leen porté avec les femmes donc limite am na limite am na mais puisque ñu ngi doog a toog peut-être ñoom suñu ñuy réfléchir c'est pas par rapport à des trucs mais ci compétence nañ ko teg peut-être prochain remaniement dinañ jël en charge ces questions là mais il faut yéen ngeen continuer combat bi pour dire vrai par rapport au poste nominatif mais pour ngeen mën a am loolu il faut que les femmes acceptent d'aller sa former parce que aussi fi mu ne nii suñu jëlee ci école bi yéen a ci ëpp yéenay raw yéenay jël raaya fi mu ne nii présentement mais dans le temps jigéen ñi góor ñi ñoo ëppoon ñi daan génn di am yenn position ak yenn taxawaay yi parce que dañ koy wax rek ni nga xam ne ñoo taxawa taxawaa position diplôme ak neneen góor ñi ñoo ci ëpp parce que jigéen d'habitude suñu tradition moo doon wax jigéen dafa war a toog ci kër ga sëy def lii def lii parce que amoon nay temps mariage bi sax da daan yàq jàngu jigéen parce que suñu société bi noonu lañ ko muulee tey dem nañ ba jigéen ñi di xeex ba ngeen am ay akki nag yu bari bu leen ko kenn xeebal man de su ma sañoon ci gouvernement bi ngeen am ci huit ba neuf mais day fekk ñooñu am taxawaay bi taxawaayu jigéen mais aussi jigéen ñi aussi dañu war a lëkkaloo gën a booloo pour seen combat yi bu mën a dem assemblée nationale am ngeen fa parité au niveau des maire yi am ngeen fa parité mais mu des post nominatif yi et ça lii day tax ngeen war a mën a door benn combat boo xamante ni par rapport au poste nominatif mais nag peut-être li ma ciy xaw a jaaxal mooy su jigéen ñi jógee di xeex jeunes yi jóg di xeex pour ñoom it ñu am une bonne représentativité dans le gouvernement naka lay demee les jeunes sont en train de se battre les jeunes sont en train de s'organiser ñoom dañu soxla 30 pour cent dans les postes nominatifs yéen da ngeen am parité mais ñoom 30 pour cent la ñu laaj. mais la parité doit être appliquée les domaines. non non non pour les postes électifs rek la loolu nag combat bu ñu war a porter la ñoom pour ñu mën a ko am dans les postes nominatifs te combat boobu ñun ñëpp dañ ci war a jàpp. mais du ngeen ci jàpp parce que yow déjà tu parles de formation les les femmes sont les femmes sont qualifiées. elles sont qualifiées. li ma ci xam daal mooy. Adama Fall bu ñu waxee quatre personnes quatre quatre jigéen dans le gouvernement et on nous parle de compétences on nous parle de formation mais quand même. léegi yow jigéen ñi ne li ma ci xam daal mooy. le développement de ce pays là doit passer impérativement par les femmes. oh du yéen a koy non déglu rek man li ma gëm parce que li ma gis la. mais loolu nga gëm mais yow doo ko def yow yow bu doon yow doo ko def Adama Fall. non dinaa nommer femme premier ministre quand même. dinaa nommé femme premier ministre maintenant maintenant maintenant doyen wax na ko dans le combat mooy au de la des ministères y a les y direction. et je pense que peut-être ñoom mën nañ apporter les corrections là pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de femmes directrices générales beaucoup de femmes parce que bëriwuloon du temps du du régent du régime précédent ils étaient pas. waaw amuñu woon parité bi. am amuñu woon parité bi je pense que fii dinañ mën a apporter la correction les corrections nécessaires pour que jigéen ñi gën a présent. Hmm. au niveau des des sphères de décision. war a gën a mën a jël pouvoir bi parce que xam nga yàgg nañ koo wax fii ci ci plateau yi jigéen soo ko joxee mën na développer mën na soxali parce que jigéen ñi ñoo yor kër yi. Hmm. ñoo yor entreprise yi fi gën a dox. jigéen ñi ñoo nekk ci bopp bi donc war nañ mën na war nañ leen mën a essayer. essayer waaw pour la tête de ce pays là on l'a pas fait foofu aussi dama ci. non foofu moom ñëpp man sax ngàññi naa. foofu foofu tamit dama ciy ngàññ jigéen ñi. nañ mën a kii parce que soo def ça dépend ça dépend de xam nga tout le benn affaire boo xam ne Adama Fall am na ku may envoyé message di ma ko wax naan bu les femmes waroon ngeen mën a jàppale Anta Babacar mais ñun jàppale wu ñu woon parce que jigéen la wala kii góor la wala kii lii la def c'est ce que ce qu'elle proposait aux femmes xëy na arrange il faut ñu dindi débat boobu teg ko fële parce que loolu xamalan la mooy c'est une de responsabilité dañoo manqué argument moo tax ñuy wax loolu waaw d'accord ñun kay naa waroon ngeen dugg ñun góor ñi lu ñu wax rek baax non du yéen a des femmes qui le disent wax loolu ñëpp ñiy wax loolu yëpp dañoo manqué argument c'est pas un mooy Maria on a vu des femmes chefs comme suñu télé bii ñu toog on a vu des femmes qui sont dans le développement aujourd'hui le ministère de la famille le ministre la madame la ministre de la famille ak des solidarité ci yéen la bokk ci dama jot comme information. ci ñan la bokk. ci femme entrepreneur yi la bokk. ci plateforme bi la bokk. waa ci femme entrepreneur yi la bokk affaire la du dëgg. affaire la bokk te waa affaire ñu ngi ci biir plateforme war na mën a xam coono yi ba ñu mën ci dugal jigéen ñi ci li ñuy def. au niveau des ministères du ministère y a des directions parce que yaakaar naa ne découpage administratif bi war nañ ko mën a def pour xam yan direction mooy bokk foofu ak yan direction yoo xamante ni jigéen ñi war ci mën a def donc c'est un combat boo xamante ni warul yem rek ci ci fii ci ay déclaration wala ci mémorandum dañuy jël exemple rek combat longue haleine bi nga xam ni jigéen ñi def nañ ko ba ñu mën a am parité au poste nominatif électif maintenant il faut porter ce combat là pour ñu mën a am une parité même su nekkee amuñu une parité boo xamante ni cinquante cinquante la au poste du électif ngeen mën a am une parité boo xamante ni di ngeen am. ma jox ko c'est un problème de moom moom il faut mu ñëw yaay moom il faut mu ñëw jàkkaarloo non li ñu ñu bëgg wax c'est-à-dire cest xam nga nous sommes daal une société xam nga xam nga problème bi mooy ñu ngi koy wax sànq ci. le comportement bi président de la République vers les chefs religieux suñu société moo mel noonu. ñoo am yaakaar kon ne mën nañ mun nañ mën na mën na retourner wu. changer donc war na mën na retourner wu ba ñu mun a dem vers une une bonne présence des femmes dans l'attelage gouvernemental une bonne présence des femmes dans les positions de décision. Okay. pour loolu am nag il faut ngeen def benn say. mbool def mbooloo. Mhm. di yëkkatee ndoo di dóoroon ndoo. Mhm. nga xam ne fu ñu laal jigéen jigéen ñëpp jóg taxaw. ñëpp jógandoo. ñëpp jógandoo pour porter combat bi. d'accord soo leen ko deful yaakaar naa ne lii ngeen di xeex. parce que nag. du góor ñi am nañ fulla. d'accord am nañ xeexuñoo góor ñi Adama Fall xeexuñoo góor ñi problème bi mooy xeexuñu ak góor ñi. maintenant il faut régler une question c'est la question du genre parce que sénégalais yi comprendre man peut-être mën naa comprendre. non yow comprendre ko sax yow.